dafa am lu ñu am loo xam ne nii ci senegal loolu kese buñ ko jëlee suñu réew dafay raw àdduna bi yëpp. Mm-hmm. mooy mooy que boo toogee sa ruq bi xamoo fan mooy sa cosaan xamoo fan mooy sa démb toogoo ak mag ya nga xamante ne ñu ngi lëlu nekk ci àll bi yor seeni xam-xam boo ko demul jëli doo ko am. waaw nga baal ma besel naa bëggoon naa rek dugg foofu nga wax léegi nii. ma amoon benn question bu ma la bëggoon laaj parce que euh, ci ci fonction yaakaar naa ne que vous êtes animatrice de fonction. mais en vous entendant parler da ngay naan historienne nga macha allah donc historienne bu jeune. ma bëggoon a xam est-ce que c'est quelque chose boo xamante ne da ko choisir dem gëstu ko maanaam jàng langue yi parce que macha allah nekk na loo xam ne ñun ñëpp je pense que ni dañu dañu daf ñuy bluffé. parce que ku sañoon tey di nga xam langue bu nekk Sénégal nga mën koo wax mën koo mën ci jaral di ay message macha allah kon boo xamante ne dañu ci euh, jaajëfalaat encore fois ci féliciter. ñu bëggoon xam si est-ce que c'est quelque chose que da nga ko choisir dem jàng ji ko wala est-ce que c'est quelque chose boo xam ne da nga ko jàng da nga ko apprendre à travers le temps ci expérience yi nga xam ne yaa ngi koy am à travers émission yi ngay def. da nga ma posé question boo xam ne adduna bi ñëpp ñëpp. ñëpp ñëpp ñëpp question boobu. Mhm. dañ ma ko yàgg di posé te mënu ma mënu ma ci répondre jàngiwu mhm. ma ko fenn. Mhm. damay naan don bu ma yàlla may. macha allah yàlla moo ma ko baaxee mhm. may ma ko mhm. amul fenn fu ma toog walla jël bic ak feuille mhm. jàng ko musul am mais yàlla moom moo ma ko baaxee doomu aadama buy dem ku ne même yow am na lu yàlla def ci yow danga ko yeewagul rek xëy na donc loolu kese la mu def taalif mag yu njëkkee dañ doon woo nit ñi ca pénc ma mag da doon jël xale yi reer ba pare courant amul woon dañ doon taal matt xale yi wër matt yi ñuy taalif ci biir loolu ñu jàngal leen lan mooy aduna ñu jàngal leen lan mooy kersa lan mooy jom mm-hmm. te nañu dellu ci kersa ak jom ak wormaal mag di déglu mag c'est parce que fu yar amul fu kersa amul mm-hmm. fu worma amatul gisuma doomu aadama boobu ban genre doomu mm-hmm. aadama la te Sénégal dañu am suñuy valeur yow xam ne nii man dama naan adduna bi ñoo fi ñoo fi gën ay valeur te balaa nga koo xam nga dugg au fond du Sénégal ba nga dem gis leen gis jigéen lan moo tax séeréer di lal jigéen lan moo tax joolaa di lël góor ñi te kenn du fa dugg déedéet loolu c'est grand secret mais ji ndax joolaa bois sacré jigéen mhm. ci jigéen ñi seen bois sacré wala ñu góor ñi ñam bu fa jógee des ku jigéen waru ko lekk mooy ñamu bois sacré waaw bu desee ngeen yóbbu añ. boo demee sax doo yóbbu añ bi de dafa am foo koy teg ñoom góor yi ñooy génn ñëw jël si ko dem yóbbu ko ci biir. te bu desee doo fa lekk. ndax lan dafa am lu tax. Mhm. jigéen du ko lekk. Mhm. sinon am doom. mu ngi noonu yàq complètement donc mhm. yooyu yëpp dafa nekk ay secret yow xam ne ni. tey séeréer dafay lël jigéen. pour jàngal ko bu duggee ci néegu séyam ban comportement la war a am. mère jàngal la pendant une semaine wala un mois. ñu yóbbu la ca àll ba mhm. waxtaan ak yow mhm. lu tax ñuy muur jigéen mhm. muur buñ la muuree est que di nga gis te du da yenu kon jigéen day yenu te buñ la muuree ça veut dire que danga nga war a déju si sa néegu sëy ba tax lu waaw lu tax pël yi di jël leket ñu la ci yeb def ci euh, puso def ci dugub def ci lamset def ci saabu def ci ay vax def ci sa yére ba pare jël sëru rabal ay léppi takkee ko ko lépp bu ne dafa am lu muy signifier leket dafa am lu muy signifier yaakaar naa ne ndax bu buñ ci doon waxtaan du ñu fi jóge kon nit ñi man daal li may wax sénégalais yi que mooy mhm. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mhm. suñuy mag suñuy maamaati maam dañoo yàgg di defar Sénégal di yàgg di jëmlante mhm. te dara bu xewoon ci dëkk da ngay gis mag yi dañ doon dox jël seeni fas dem fa waxtaane ko ba mu rafet ñu dellu si waat jàmm daal di dellu te loolu yaakaar naa ne ñun ñëpp war nañu jëlaat exemple boobu mm-hmm. ñu daal di dox ci tànk yooyu mais rawatina nag jigéen ñi mm-hmm. parce que jigéen moo yor moo yor àdduna mm-hmm. benn jigéen bu yàqoo rek benn àdduna yàqu na kon ñun ñëpp ndaag nañu gëstuwaat suñu cosaan xam suñu cosaan jigéen buy dox sax dafa am nu mu war a doxee dëgg la mhm. ak ni mu war a toogee mhm. jigéen dafa am nu mu war a solee dàllam jigéen dafa am nu mu war a woddoo sëram jigéen dafa am nu mu war a takki musóoram dañ si daan xool jigéen pour mën laa takk bu njëkk ba yooyu yëpp donc loolu yëpp daal ndaag man li may la de ay gaaf yooyu li ñuy wax <laughs> non yow yow foog ngay ngarale parce que naam sax yaa ngi ci benn benn chaîne euh, di TFM RFM waaye da nga ñëw fii en tant que Bessél Sénégal mooy dafa am loo xamante ne macha allah yaa ngi jàngal ñu bari ndax mhm. léegi xam nga ne émission bi guddee na mhm. mais ñëpp ngi toog di jàng ñëpp a ngi kontaan ñëpp a ngi rafetlu sa teewaay kon je pense que xale bu loo xam sa tey dina mën a bokk ay mag kon euh, ma lay jaajëfal di jaajëfaale Sofia mhm. Sofia euh, Sen TV te je que ren euh, Omoro ñu dugg ci sponsor yi télévision yi ren muy télévision yëpp dañoo am lu spécial